Indian man wagwan, right hand up, big up, dancehall, du yem ci jeel bi kase du yem ci politique bi kese mais day ñëw sax ci li jeunesse bi di dund dem naa sax ba dégg la nga ci classe ay Ousin Kayta ay Wally ay booy yu sol ay pain da ko ciy clash pourquoi loolu. non man ki ma gën a mere si boom sax ki ma gën a mere du Wally de Ouzin Keita laa gën a mere Ouzin Keita moom moo yëpp sénégalais yi sëmbisil la kii solo part dëgg mooy booy bi kii moo yëpp sénégalais yi xam yéen su fekkoon da ngay def te dig fekk la fa yóbbu la. mbaa ay góor yàlla yooyu fekk sa buntu gàlleewu jaxase la artiste dafa garaaw mais artiste yu bari fi ñoo yàq temps bi non te mbalaxmaan yu bëri bokk ñoo yàq société bi fii mbalaxmaan yu bëri yi ngay dégg nii nii ay góor jigéen sax ñoo leen tane ay kanaara ay mbalaxmaan yoo xam ne dama leen gis fii dañuy xool dañuy xeetal comme ay jigéen billaahi góor ay góoraa mbalax ay mbalaxmaan ñekk si taam fii de du ma wax nag kenn du wax turu kenn ñu ngi si taanu fii nii te ku ma si amerde moo ko sa moo ko la sa bopp te ku ko diingat mag ngang sa kaw mat lima la ñu ngi fii ci taan bi ay mbalaxmaan yi mais nag ana góor ak xeetal ana góor ana góor ak xolli ay tuñ di di xolli ay tuñ yi mel na benn benn benn ñoom ñii booy am na yoo xam ne mais mais adduna bi ba la moo jar loolu ndax bëgg nga génn woy xel ñu ne woy kii de dafa boo mais xale yi noob la te te kanaara nga maanaam xool góor jigéen góor dafa war a góore saf góor loolu mooy yëfu góor yàlla dëgg da war a nekk góor da nga nekk góor yàlla kan doon góor mais ay da ngay gis da ngay gis fi yenn boy yoo xam te ne léegi li ñuy diwa rek seen crème bi ñuy diwa rek ay 45000 50000. ci ay góor. si ay góor bu jëndee affaire yéen a ngi gis mu ngi temps bi bu ngeen doxee da ngeen gis seen da ngay dox ba gis benn góor bu xoo boo xam ne dafa xoostuñu ba mu xonk xoostuñ mais loolu nit ju daale ko yaa ko sa bopp ay ngi seen jëy di ko xoos ba mu ñuul. surtout di nax yàlla mais avec yooyu mooy la ba pare yaa dàq naan sàngara yu xeesal ngay diwoo di teg nañu xel bu la benn kon gisee barde defe ni defe ni kii moo téegal bukki bi ndekete bukki bee ko téegal temps bi bari ay góor jigéen boo duggee si baar yi instant bi nii nii nii nii nii xoolal même si viseur ngeen laaj leen si baar yi du wax benn baar benn boîte boo duggee si boîte yi ngay seen ni nii beaucoup de canards ay boy yu ndaw ay góor jigéen yu bees tàq tàq Sénégal laa la wax expliqué nii la partout senegal partout ay boy yu ndaw góor jigéen yu bees tàq tàq parce que góor jigéen dafa bëri façon am na boo xam ne yaa koy bomb am boo xam ne ni moom moo lay bomb am boo xam ne ni da koy bomb mu bomb la. yee bëri façon de mais booy bëri ñu ngi nii booy seen kóol yi bu ko génnee da nga naan c'est pas vrai mais ndekkee boo ko doon ndekkee yow mu nga si añ reer si. mais nañ wax si yooyu si góor jigéen yooyu parce que lobby la mënoo si dara lobby la boo xam ni entre yaa ma gën a xam fray la ak kanaare yi ak góor jigéen même lobby boo si bokkul dañ lay affaire góor jigéen yi mais comme booy bi moom yooyu moom waa ndaw si lan sax. mooy ban mooy ndaw si bërigo la xaw ma. ndaw si. ndaw si bërigo. ndaw si bërigo. waaw mooy malaxmaan boobu rek. fi benn waaye fi wul bërëg bërigo. moom noonu waaw moom mooy ndaw si bërigo. Ah. na bàyyi yooyu muy def quoi. na nekk nit quoi. te mu tuub te mu na góore te bàyyi xeesalu quoi. mbéppi na faj tànkam yi ak ndigg quoi. te bàyyi xool bi rek bu métti def si temps bi quoi. Hmm. na nekk nit. moog police la xaw ma waajam bi noonu na nekk nit quoi mën nañu am xaalis sans yéen yi quoi. dégg dafa gaaw de. Eh, parce que xalakal moo ti war xayaat. moo tax gisuñu 10 000 puisque moom rappeur la la moo tax gisuñu la ci coowul pétrole dañ fay gis ay ñoñ yu bari. non affaire pétrole man du si wax de man su ma demee bay wax si man su ma naree wax ma wax si affaire pétrole man su ma si demee ba naree wax si su ma paree pour wax si pétrole bi ma wax ñoom lu mu dul wax maa ngi dégg na temps yi passé ku nekk yor sa làmmiñ naan pétrole gaz pétrole nii di xàngi di sóob di fenn yor sa làmmiñ bëgg jaxase nit ñi fii kenn mënuñu jaxase kenn nan dem joobi. seen làmmiñ sax dina tax sax doo gis dara ndax làmmiñu Sénégal yi yàgg na ni job sans pétrole sans pétrole sans gaz mais bu jotee ñu wax ko ñun waa ñaam lu leer ñun dinañ ko wax mais kenn duñu jaxasee kenn bu gën a xool politiciens yi ngay seen nii ni opposant ni pouvoir ñoo yem nit ngi nañuy utiliser di leen dofloo nii ay marché ay guerre yow loo wuti foo jëm boo fa dee yaay perte de bu la fa te policier moom moom balaa kontaan dugg kaso balaa bëgg dugg 100 dugg jeel mu sibile <laughs> non c'est pas na si ne si am fulla bàyyi am fulla dem joobe yi ku amul ku nga muñ fii ku fi dee yaay perte de billaahi wallaahi mais ngeen di balaa kontaan dugg kaso te kaso neexul kaso gi ak métti gi nga wala seen kaso yi bokkul seen kaso yi bokkul mais am na ñoo xam ne ñoom seen kaso soxla moo tane fuuf ñoom seen stratégie doole si bokk quoi balaa ngaa kontaan dugg paso boo duggee xoolal kaso nag ñoom dañ lay valoriser ñoom xam lu leen neex ñoom jàpp nañu benn élément Samba wala Demba dugg na ka kaso wa waaye journaliste yi xëy suba naa diw ma nga prison tëj nañ ko nii wax nañ ko nii ñoom bësoom ñoom moo leen neex bu ñu génnee ne xool am poste nag xam nga xam nga sem fii moo yombu te doo liggéey doo kaas rek gars yi xawru sa kaw isaay man su ma demee ba mun ma juba yenn rappeurs yi ba genre yenn amaar yi rappeurs yi nga xam ne ñoo dàqal duul si adduna bi ñi nga xam ne ñoom mënuñu nekk lu jaxase askan bi duñu dara si réew mi ay Simo takk ay bili bili nga di booy booylu moom du booy quoi Simo mag la quoi Simo grand nga mag nga quoi yow ba nga dépassé sa chaîne përëmi yi sa weñ yu bëri ngay takk nii nii di pàncaan mel na benn booy bu ndaw nii danga nga war ay fulaar yi yow mag nga kilifa nga yii da ko war a waa ji bàyyi maa ngi jégoon nag quoi Ndiaga Kouka jaajëf yooyu eh, su ma fa damay dem si Kouka ki ñuy wax Mansour Faye Mansour Faye maa lay wax nag Mansour Mansour Faye ngir yàlla dana teg ndar pour nga dimbali waa ndar man je suis d'origine Saint-Louisienne from Saint-Louis man maa génne xoolal from laaxire man ma si man la jógee man maa kere loolu je suis être fêté Saint-Louisienne yàllaa ma xiir Medina maa ngi Dakar Medina et puis je respecte Medina yes side fa lépp sama lépp xoolal foofu di leen béggee di leen bi ko baax a baax li ma leen ñaan mooy ndar Saint-Louis nga liggéey ko sa quartier nag moo gën a salté moo ëpp mbalit le président Macky Sall dala teg pour nga jàpp leen Mansour Faye ngir yàlla defal comme ni Bamba Fall di def maire Médina Mansour fay defal comme ni Cheikh Ba di def dimbali waa Médina mais da nekk ndar waaw Messi da ngay nekk ndar nga nekk Dakar yor ay millions yow boo dee baa na ni xam ne xoolal ki nga dëkk dimbali leen seen gox ah, ndar xola barewul ndar lii la xolal te gox mbaaj la sanc ba no sanc kaw sang suuf gendar fu nga dugg noor sud soor dugg ay jàmb gën xam nga xam nga jàmmi naar dugg soor ba noonu après jógoo fa dem sànnaa dem bàngoo dem fii fii fële foofu ndar foofu yow mën a defar defaral foofu nga jël fi mbale mi parce que temps yi passé man man su fi xam fan laa ko meree bi tabaski passé temps yi passé benn xale moom moo dee si booru dex gi benn xale bu ndaw te xale bi ñoo bokk benn koñ am na beneen gaan am na beneen grand te am na beneen gaan tamit xoolal bu ñu fa rey foofu ak goxu mbaaj ba léegi police deful enquête am ba léegi jàpp na boobu ba léegi ñoom ñu am résultat mais ba léegi xam mën daal je ne comprends rien xam nga crime moo tax gars yi faut ñu appliquer peine de mort faut ñu appliquer peine de mort nu jël population bi boo leen si askan bi ni ko rey nit xool boo reyee nit bàyyi waa koñ bi rey ko mu fin boo reyee si boo reyee bàyyi sur le champ nit dan la war a rey sur le champ mu fin nanu appliqué peine de mort fii ngay gis ni ko réparé mu koy suba génnaat da ngay rey ñu ne woy am na doole wala ñu tëbal la kaaw chaque instant nga dégg benn crime du mu ñu fenn sama koñ boog ak Goxambath Saint-Louis dafa am mu fa nekkoon ba léegi rien amaana crime ba léegi rien benn xale de Mansour Faye ñëw xëy suba dagg la ay booy di teg di kiraay newetaan booy di xool gi fubal booy di jëmën a paaka ñii di raak mais man de Seye Baye loo liggéey maire en tant que maire Saint-Louis mais Cheikh Bamba Dièye bu nekkee Baye foofu mel woon moom na fa ternukaay mais pour mu liggéey Saint-Louis en tant que moom Mansour Faye di yaakaaru Saint-Louis nekk maire ñu yaakaar ko teg ko fa mënu fa sax jëlee mbalit boo xoolee Saint-Louis dëkku moo la dëkku pes la ba pare ma ma jàllale beneen message xool si bël bi bël boobu ngay sën maanaam bël bi rayagum na xam ñaari personne ah. quatre cent quarante non quatre cent quinze personnes la reygum si bël bi 2016 laa wax de 2016 2016 bokkul 2018 2019 waaw boo ma soxal deux ans yi 2016 bokkul bël boo xoolee rey na quatre cent seize personnes nanu jàppale gars yi si côté boobu quoi jàppale mool yi parce que am nañu espace quoi am nañu langue de babar am na leneen leen am nañu ay ceeb seen ñoo am nañu budget mais xaalis boobu Mansour Faye fan la ko dugal mënoo sax jëlee mbalit dëkk bi salté bordel gaal yi si kaw tali bi. mais oto sax mën na ko mbëgg weta président buy jaar foofu mais foofu day seet wecc mais c'est quoi le problème lan la quoi Dakar rek du Sénégal tamit noonu jàpp tam gars yi nekk si tam yeneen saayir yi ak àll ba da ngay si nit ku biir si kaw sareet wasin si kaw sareet ngay wasine hôpital yi tamit mooy loolu nan dimbali tam malade ak hôpital yi te yàlla moo tax ten taw seen te la forom laaxira rañ forom laaxira li nga dëkk ci raison bu sori bu mel ni Saint-Louis di nga ci kaas moo tax nga tudd ko wala li ngay dund la mu mel ni alaaxira waaw foofu nag mooy laaxira nag daa ah, ah, foofu la waa Sénégal commencé. Saint-Louis waaw ma premier waaw mooy premier Sénégal. yes man dama doon jàng di jàll si ay dex pour jàng yow ay 6 heures ay 6 heures laa doon yow dem jàngi alxuraan di jàll di féey pour jàngi alxuraan boog est-ce que dégg nga bu baax. lay dégg bu baax. waaw loolu xoolal ki ndar laam ndar gars dañuy jàngi alxuraan yow ay 6 heures du wàll bi maanaam jéggi ndox mi pour jàngi alxuraan da ngeen bëggante ay ginneeg lépp mais dara parce que ñu ngi daara eh, nan jàng alxuraan quoi nan day jàng seen diine seen. a eh, yeman wagwan wacando bikab dan sal sing ten thousand matala from lakhira rain kinkang kunkang chungchang yi ha hun ha jung jang bp ak Mr. Mamar in the ak Mezzo Muhammad la rang 10,000 matala from laaxira boum craquette boum. mbokk yi gis ngeen ko ah 10 000 problème lañ leen andiloon mu wax li nga xamante ne ni moom la bëgg ci senegal moom la bañ ci senegal moom lay ñaawlu ci senegal mais man avant tout damay rafetlu yite bi ak oyof bi la fekk nga déplacé wu de Médina à Liberté 6 pour ñëw seet suñu maa ngi lay bigg bu baax a baax a baax di kontaan ci yow di la jàmm. di wax ne nag li nga bëgg ci Sénégal gëm naa ni am naa ni yàqin ni suñu borom dina ko def mbokk ñu ngi jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi du yàgg dara ci ak Actu jaa ngeen jëf rang comme ni ko diimil di waxee